la ilaha illallah la ilaha illallah di mbokk taalibe yi ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a set la di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké di ñaanal mag bi sëriñam bi Modou Mbène suñu borom yàggal ko fi loolu tamee ko wér mu mel ne mi ngi taxaw ak sunu jëwriñ Serigne Ibrahima Diaw bu Lamp Fall leeral Touba sëñ Soba Sarr mu nekk ci cameraman bi waaye ñu ngi taxaw ak sëñ Baara Ndeye Thiaw moom mi nga xam ne bokk na ci euh, ja euh, kilifa kër gi waaye xam naa ne dañuy nuyoo noonu rek ñu noppee ñu jox Serigne Ibrahima Diaw Baye Fall mu waxtaan ak sëñ Baara Ndeye Thiaw ndeysaan mu wat ñu li nga xam ne ci mooy bis bi nga xam ne mooy bisu Serigne Cheikh Ndiaye Bara muy euh, màggal gi nga xam ne ñu ngi koy defal chaque année euh, yaakaar naa ren nag ci deux mille vingt quatre xam naa ne bu suñu Ibrahima Diaw ñëwee daal dina gën a leeral lépp incha allah suñ ko ginnaaw bi ñu la nuyu. alhamdulilah rabil aalamiina euh, bisimilah rahmaani rahiim mbokki jullit yi nu ngi nuyu baax di leen siyaare waaye di jiite siyaare bi nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Cheikhul Khadim di ko ñaanal baax su borom yàggal ko fi waaye noonu la ñuy siyaare nag murid bu u Serigne di Fall mu Serigne Mour Fall Mbenda ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi siyaare baax nag sëriñ Cheikh Mor mu sëñ Abdou Sis sëñ Mor Talla waaye jaare ko si buntu bi nag Seydina Aline Fall di jëwriñu sëriñ Abdou Sis Fall euh, di ko ñaanal baax suñu borom yàggal ko fi ak mboolem njabootu Cheikh Abdou Sis Fall bi mu mel ne tey jii la talaata euh, juróom-ñeenti fan si weeru tubaab euh, fii nag tey si Touba Palen waaye si gën kër lañ nekk tey jii muy kër sëriñ Baara Ndiaye kër sëriñ Baara Ndiaye nag ñu ko waxee xel yi ak xalaat yi dina dem ci diggante eh, Serigne Bara Ndiaye waaye bokkoon ci mag ñi toppoon ba wéyjuram mag ñi toppoon Cheikh Ibrahima Fall waaye ginnaaw bi nag muy mbokkum Cheikh Ibrahima Fall waaye suñu borom nag féetlu woon ko ak Serigne Mortala Fall mu mel ne tey jii sëñ Massar Loum si eh, la ñuy fàttaliku jàmbaari sëñ Mortala jooju muy sëñ Bara Ndiaye waaye di ñaanal bu baax na xalifaam bu baax bii fi nekk di Serigne Mbacke Ndiaye Bara moom sëñ Bara suñu borom ko fi waaye di ñaanal jëwrinam ji di Serigne Mame Ndiaye Bara mii suñ borom yàggal ko fi lool moom it waaye di siyaare baax nag seen doom ji nga xam ne euh, wala fi dañ ne taawu baay lépp lu waay def si kër baay rek taawu baay baax nga ko defal mu mel ne noo ngi siyaare baax nag sëriñ Baara moom sëriñ Cheikh Baara di ko ñaanal baax nag si bisam bii nga xam ne doon na ko taxawul way juróoma fële sa Touba Gassane suñ borom yàggal ko fi wéral ko ba mu yàgg ko woote moog rakkam yi mbokkal suñ Cheikh Ndiaye Baara wér ñu ngi feggoo kenn si jëwri ni kër gi di sëriñ Baara mu sëriñ di Ndiaye Baara mu xam ne bisu pej yi dañ koo lëkkale ak bisub si ñoom ni Ndiaye Baara bi waaye ak bisub Serigne Fallou Ndiaye ñoom ñëpp di njabootu Serigne Baara ñu xam ne comme sotti si ak defte la ñu jël bis yëpp rek dëxañ ko si biir ki nga xam ne buñ tuddee Serigne Baara tudd nañ Serigne bi waaye buñ tuddee Serigne bi tudd nañ Serigne Fallou Ndiaye mu feggoog Serigne Serigne Baara mi nga xam ne mooy xalifa Serigne di Ndiaye Baara waaye di ñaanal baax na soxna Xadi Ndiaye suñ borom yàggal ko fi lool mun suñ fàllu sëriñ bi mel ne tey ji yéen a ngi fii si kër gi di fàttaliku ki nga xam ne mooy seen maam waaye ngay fàttaliku waale di ñaanalaale sa wajura muy Serigne Amdy Ndiaye Bara yan kàddu ngay jot li mbokk yi lay topp ci réew mi ak ci bitim réew. salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Ibrahima Gaye wax nga lu am solo mooy bis bii nga xam ne moom lañ def ci Touba Palais ci ko sëñ Baara Ndiaye ñu ko jàmbaar bi sëñ di ko ñaanal suñu borom yàlla dolli ay moom Cheikh Ibrahima Fall xanaa li ñuy dolli bokki taalibe rek mooy ñu xam ne bis bi daal bisu cant la ak ñaan euh, sëriñ bi joxe woon digal ni ñu xëyee dañu ak jàng xasida ak salaatu ala mu mel ni fekk ngeen di jàngkat ko xalaan jàng ba noppi jàngkat ko xasida yëpp jàng ba noppi mu mel ni sukuru sukarkat yi ñoo def suñu seex ndooy ñu di jël bu noppee ñeneen day ci jël kàddu barkeel mu ni daal bis bisu mbégte la ndax li tax bisu la mooy ki euh, defal bis ñu sëñ baara sëñ baara jëriñu sëñ moo kon jaadu na ñu defal ko bis kon ñu koy fàttaliku di ko fàttaliku waale suñu wajuro Cheikh Aliou Ndiaye Baara di ko fàttaliku waale suñu Fallou Ndiaye suñu Aliou Ndiaye ñoom suñu Baara ñu ñu koy fàttaliku waale bis bi di ñaan suñu borom yàlla dolli seen leer dolli seen ngërëm baaxal suñu si naan dara di sant bokk jullit yëpp bokk taal yi ñu teew na ñu tàmbalee cant gi ak siyaar yi nag suñu mbàkke mi xalifa suñu Baara dafa ñaan suñu borom yàlla yàggal ko ci kon dañuy ñaanal ko jëriñu leen béykat bi sëñ maam Ndiaye Baara suñu borom yàlla dugal ak xalam te wéral ko xam ne liggéey bi lépp moom di sant nag jëriñam sëñ Baara Ndiaye Seck ak sëñ Baara Fall ak sëñ Bada ak sëñ Bass ñi nga xamante ñoo taxawu liggéey bi euh, ñu topp ci seen ginnaaw ak sëñ Taala di sant bokki jullit bi ak bokki taalibe bi nekk réew mi ak nekk bitim réew ñoom ñëpp dajale nañ seen doole ak seen pas-pas ak seen alal ak seen i xalaat yëpp indi ko sëriñ bi kon ñoom sëriñ bi am na sant waaye ñoom am nañ sant ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom yàlla dafa ñun di boole taw feex ba ñu sëriñ bi yàgg a woote ñu yàgg wusi te ñu sëriñ bi digle dëppoo seen gërëm sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Bara bala ñu bàyyi mu nga di fële sa Touba Gassane te dafay ne bi ngeen wootee yoon yi donte neex na néexul seen yi ngeen bokkal Cheikh Ibra fekk nañ leen fa waaye ñi ngeen bokkal sëñ Bara Ndiaye fekk nañ leen fa kon amel nga ne dafa bàyyi ko si jëwriñ ja di sëriñ sëñ Bara Cheikh moom sëñ Cheikh Ndiaye Bara waaw tey daal am nga wax nga lu am solo ndax euh, bis boobu waxee ko moo jàll mooy le 30 décembre le 30 décembre ñu doon ko defi ca Touba Gassane di fa jàmbaar bi Serigne Cheikh Ndiaye Bara ñu ñaan suñu borom yàlla dolli ay leeram taas ci barkeem ñun suñ baara muy xalifa suñ Cheikh moo ko woote woon ànd ko njabootu suñ Cheikh Ndiaye Bara ak njabootu suñ baara Ndiaye yëpp mel ni Touba Gassane xaw naa sori yoonu wax dëgg sëriñ bi ñëpp jaayante nañ fekk ko fa sëriñ bi nag ñu ngi sant di di ñaan suñu borom yàlla dolli ñu nga leen tawfeex ba mu yàgg a woote ñu yàgg ñu euh, na ni ñu sant njabootu sëñ baara sant amul seenu fay ndax na yoonu neexul te ñëpp jóg nañ seet boo xam ne ni ko sëriñ bi bëgg woon defe ko ni defe na sëriñ bi tegoon ci ñu sant na waa gasaan ak waa belkati waa Madina Fall waa Louga Soune waa Lumbel Mang ñëpp sëriñ bi amee nañu sant sant yooyu nag maa ngi koy jaarale sama ju xeebu ko jot ñun ñëpp sëriñ bi daal sant ñëpp gërëm ñëpp ñu ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa barkeb maam Cheikh te xam na ko njaboot bi mbaaxu sëñ Tuubaa maam Cheikh dafay mel ne dégg nga kàddu yi nga xam ne moom la Serigne Bara am di muy sëñ Bara di xalifa sëñ Amdi Njaay Bara doon yëkkati ci bisu màgg bi nga xam ne noo koy taxawee fii tey ci kër gi mu mel ne soxna Xadi Njaay mi ngi ci biir waaye dinañ leen toppal li nga xam ne moo fi am rek ah, ci wàllu bis bi nu euh, bàyyi ak sëñ Massar Lo Mbaye Fall jërëjëf Serigne Ibrahima Diaw kàddu yi rafet na ñu ngi nuyu Serigne Baara suñu am di moomu ah, di ko ñaanal jàmm ak tawfeex bu baax a baax gis nañ taxawaay bu baax gis nañ. Euh, comme niñ ko laaj ñi fan la 30 bi jàll bu ñu juumut ci la dem Gassane dem fa bisam bu seen bis bu rëy boobu waaye mboolem ñu jokkal Cheikh rek fekk ci nañ leen fa ak lu yor wi naqari naqari waaye rek ni mu rek moo ngi sant mboolem koo xam ne si teew nga fa di sant mboolem taalibe yi ñu fii rek ci kër Serigne Mbacke Ndiaye di wéyal liggéey bi nga xam ne ci kanam rek bu soobee yàlla danañ ko indi mu xaw ñoo jàllale lay kàddu tuuti fii ci Falène kër Serigne Mbacke Ndiaye di wéyal liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy doxal ci suba ak léegi ñaan gi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal Serigne Bara Ndiaye di taxaw ak kenn nag ci njaboot gi muy cheikh abdullah ndjay bokk ci tout tanki waye nak ci saaxir di sunu xarit di sunu serigne bi si lépp sëriñ bi ginaaw buñu ñu la nuyoo siyaar la mu mel ci liggey bi ci suba ba legi man naa la sax ban ko jappé ba legi liggey baangi ngi démarré waaye tey deug dëgg jëmi bis bi euh, mu mel ci suba ba legi liggey baangi dox gan ñaangi ñew ku nekk xamna né waccay wi metti na yoyu rawat na yeen maray di teertu gan ñi di leen teral lan ngay wax ci lolu ginaaw buñu ñu la nuyoo siyaar la euh, wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Thiarloum Baye Fall ñu ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàcc waay ginnaaw bi ñu jiitalee ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu ci wéral noonu la mu di ñaan suñu borom yàggal ko di siyaare bu baax suñu jëwriñ suñu sëriñ di sëriñ Mbacke Ndiaye mi nga xam ne tey moo toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Lamine Ndiaye Baara di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu ci wéral ma laaj naa sawar lool ci tontu ko ginnaaw bi ma leen euh, félicité ci seen liggéey ci di ndokkeel ci li def nga xam ne yéen bis bi moom saa bu amee kenn du leen fi jiitu ngeen liggéey taxaw euh, gis nañ taxawaay bi lool ci diine ji ak ci kër sëriñ bi kon ñoo ngi leen di ñaanal suñu doom yokk seen télé bi ba li ngeen ci bëgg a def lépp ngeen def ko ci su kawe seen bopp waaw de jubli ci laaj bi nga xam ne yaa ma koy laaj waaw laaj bi nga xam ne yaa ma koy laaj mu jëm ci liggéey kër sëriñ ñoo ngi ci tàmbale ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida ak salaatu ala nabi lépp defee ko ni ko sëriñ bi diglee ngir sante ko sunu waajur woowu sunu maam jooju di Cheikh Mouhamadou Lamine Ndiaye Baara ñaanal ko képp koo xam ne jiitu nga di si barsàq di ko ñaanal njaboot gi yëpp noonu ñu ko sëriñ bi sante biñ demee ba ay ginnaaw tisbaar ñoo ngi ci nekk ci xéewal yi di toppatoo gan yi di toppatoo murid yi ni ko sëriñ bi bëggee màggal gi daal noonu lañ ko taxawee di jàng alxuraan jàng xasida def salaatu ala nabi euh, di di di ñaanal gaa yu baax yi di sàkk seen baar sàkk tamit loolu daal loolu lañ ko tàmbalee ci loolu lañ ko nokkee ba euh, ginnaaw takkusaan sëriñ bi ñaanal ñu yewi mbooloo mi ñu dellu ci ité yi ba déwén incha allahu rabbi jërëjëf sëriñ Abdou laat kàddu yi gàtt na waaye mat na mat la na mu mel ne comme ni nga ko waxee ci suba ba léegi yéen ngi ci liggéey bi ci nekk xam ne way daw yi lii rek lañu am muy kam loolu nga wax lépp rek muy ci suba ba léegi mu ngi ci euh, wàcce kaamil yi salaatu ala nabi astaxfirullaa yi mboolem ñaan goo xam ne ñu ngi leen koy ñaanal rek ci suba ba léegi ñu ngi ci li ci warloo woon lépp mën naa ne ci suba la mat waaye dañ ne nit ku ko woo il nga teral ko il nga berdel ko waaye bu ñuy xool tey li ci amoon farata ak lépp rek mooy wàccee kaamil yi bi ñu ko defee ñaanal leen sëriñ ñaan suñu borom jot leen ci ñaan yooyu ak mboolem ñan ko fekk ñu leen koy fekk ñëpp waaye ginnaaw bi nga xam ne ne tey jii xam ni nga waxee tusbaar jot na ñu yëngal kaw gi ñu ngi yëngal kaw gi nga xam ne yéen a euh, recevoir gan ñi xam naa ne du ñàkk ne ay coono am na ci ak séentu màggal geeg yooyu yan lancé ngay lancé message boo xam ne daal jëm na ci mbokki taalibe yi nga xam ne ci ànd ngoon ak ñoom ak liggéey bi sax saa yu ngeen wootee ngir jëmi sëriñ bi ñu teew waaw sëriñ Massaer liggéey bi moom mel na ne coono bi du ab coono ndax coono boo xam ne coono mbégte la di coono xéwal coono boobu moom da nga jàpp ne du ab coono waaw ndax lépp luñ ci defal rek dañuy jàpp ni maam dañ ci dem ngërëmal sëriñ borom suñ borom di ko jaare ci suñu buntu suñ ci suñ borom ci sëriñ Tuubaa muy Seex Mouhamadou Lamine Ndiaye Baara di sant bu baax ki nga xam ni moo ko nekkal di sëriñ Mbacke Ndiaye ak cheikh mohammed Maam Ndiaye Baara ak mboolem njaboot yëpp waaw taxawaay moom taalib yi am nañ ci taxawaay bu baax ndax saa bu bis bi ñëwee ku nekk ni nga ci war a taxawee da nga yëkkati sa addi yëkkati sa doole yëkk eh, dagg sa yitte ñëw ci bis bi ba lépp sot kon loolu Euh, taalibe moom amuñu seen fay ndax taalib ak taalibe sëñ bi amul lu moom te sëñ bi tamit amul lu taalibe yi kon ñoo ngi sant murid yëpp di gis seen taxawaay rafet na waaw bàyyiwul kenn nag moom dañoo mën a wute wax waaye am nañ mbégte am nañ kontaante bu baax baax ci liggéey bi ñoo ngi ñaanal murid yëpp yàlla na suñu borom faj aajo yi te fekk ñu ko ay déwén yu bari te ñu tas cee ngërëm sëriñ bi di ñaan suñ kilifa gi fi nekk nga xam ne moo jiite liggéey bi sëriñ Mbacke Ndiaye suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Baara suñ borom defal ko ci lu kat kawe njottam te mu ànd ko njaboot gépp barke si yow Mouhamadou Lamine moom lañ taxawaloon mbokk ci njabootu kër gi mu mel ni mu ko waxee rek ñaanal na boolem taalibe yëpp rek suñu borom yokk leen man yëpp ko sa xam ne taalibe loolu rek la am sëriñ bi ñaanal ko ndax heure bu wootee muyu mm-hmm. waaye am nañ mbégte bu baax ñu ngi ànd ak sëriñ mm-hmm. Mbacke Ndiaye mu mel ne ne ñu ngi ci liggéey bi ci suba ba léegi rek ñu ngi koy continuer di ko defee rek mboolem kilifa yu ñu dem rek buñ fa jógee dem ci ña sa def saytu liggéey bi nga xam ne si moom la ñuy liggéey fii ku nekk xam la ñaan sëriñ Cheikh Ndiaye Baara sëñ Amdi Ndiaye Baara ak sëñ Baay sëñ Baara Ndiaye waaye tey nag mboolem njabootu sëñ Baara Ndiaye yëpp rek dañoo boole seen lépp lépp def ko muy genn jox waaye tey niñ ko taxawee ak sëñ Amdi waaye tey nag ñu ngi taxaw ak si jigéen ñi koo xam ne si si njaboot gi la muy soxna Xadi Ndiaye mu sëñ Fallu koo soxna Xadi Ndiaye xéewal soxna Khady ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la mu mel ne eh, ñaan gi comme ni nga ko waxee ñaanu Serigne Cheikh Ndiaye Baara ñu boole koog sama juru baax wa Serigne Amdi Ndiaye ñu boole koog benn ñaan gi rek ak mbooleem ak Serigne Fallou ak mbooleem eh, taalibe yëpp rek fépp koo xam ne si euh, nit a nga fa rek di bëgg lu baax rek ñëw nga fii ci pàcc bii nga xam ne si kuy sàkk lu baax boo fi ñëwee rek yaakaar naa ne sa aajo mën a war a faju euh, sëriñ Mbacke Ndiaye nekk ci bopp bi di ko ñaanal suñu borom yàggal loolu tamit ku wér nga ànd ak mboolem soxna yeeg talibé yëpp rek ci liggéey bi nga xam ne mooy la ñu liggéey ci subaak léegi buñ la joxee ginnaaw nga nuyu la ak siyaar la daal yan kàddu ngay joxe ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi ziar mboolem ku ne nekk koo xam ne taxaw nga ci biir bis bii muy bisum ngërëm di bis boo xam ne it dañ ciy ñaanal sunu maam bi tëdd sëriñ Baara Ndiaye di ci ñaanal it njabootam da nga xam ne mooy sëriñ Amdi Ndiaye ma làqu di ci ñaanal it sëriñ Fallou Ndiaye ma làqu ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom la sëñ Baara meññi ñaan gii na ñu koy def at mu jot ci Touba Palen gii sëriñ Baara Ndiaye nag ku ne xam ne ko mooy sëriñ Bara Ndiaye moom maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Serigne Bara Ndiaye moom Serigne Mor taal Fall Serigne Bara nag daa bokk ak lépp Cheikh Ibra li mu bokkee ak lépp Cheikh Ibra da koo jaay jëndee ko taalibe sëñ Ibrahima Ngone moo ko jur sëñ Ibrahima Ngone Ndiaye Fatma Diarra mooy waajuram Ndiaye Fatma Diarra ak maam Mor Ndiaye maam Mor Ndiaye mi nga xam ne moo jur sëñ Daara Assane ñoo bokk benn baay. bokkaat ak maam Seydou Ndiaye yaayu Cheikh Ibra benn waajur seen waajur yi toppante kon moom bokkoon naa ak Cheikh Ibra ci njare ngir maam Seydou Ndiaye ñoo bokk lépp bokk ak sëñ Daaru Assane lépp waaye nag wëlbatikuwaat bokk ak Cheikh Mor Talla néegum nday ndax Fat Diop Sayer ak Seynabou Diop ñoo bokk nawet baay Fat Diop Sayer moo jur sëñ Mor Talla ak sëñ Aliou Seynabou Diop moo jur sëñ Baara Ndiaye kon ñoom moom dafa bokk ak ñoom ba noppi jaay ko jënde ko ak taalibe liggéeyal Cheikh Rafaal ñaqal ko ànd ak moom doon doomi ndeyam doon doomi baayam waaye tim doon ab taalibeem doon ab jaamam ndax doon yëkk a góllu waaye mu liggéeyal ko ba jot ngërëmam ngërëm loolee mu jot nag moom la ñuy màggal ak mu jot fii ci kër gi ñun doom yi ak sët yi ah di leen ci ñaanalaale ñoom way dawlu yi ñuy ñaan ñuy ñaanal kaamil yi ñu fi wàccee ak alxuraan ji ak xaste yi yàlla na leen fekk fañ tëdd te it ñaan gii Seera Faal yàlla na ci gën a bëgg ndax Seera Faal kat moom sëñ Baara Ndiaye daa jaay léppam liggéeyale ko kon Seera Faal lépp lu ñuy def bokk giñ bokk moom dañ ko jaay jëndi ko taalibe kon lépp lu ñuy def rek maam Cheikh ko da moo ko lal mooy dàtt bi Cheikh Mortala di doomi ndayam mu wëlbatiku jaayanteeg moom ba mu gisatu Cheikh ra yem ci sëñ Mortala kon kër Cheikh Mortala mooy kër sëñ Baara Ndiaye kon ñi ci bopp bi sëñ Abdou Rokhaya Fall ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool moo toog jotaay bi sëñ Mortala waaye ñuy ñaanal sunu baay yi nga xam ne ñoo fi ne muy Serigne Mbacke Ndiaye moom Serigne Baara nga xam ne moom daa jaay léppam jureel géeg lépp sëñ Mbacke da ko jaay jënd ko taalibe dara ñoru ko lu dul ak taalibe moom ak sëriñ maam Ndiaye mi nga xam ne moom mooy jëwrinam sëñ maam gis na ko ci suuf lay toog bëggul dara soxlawul dara te am lépp nag waaye terewul rek moom léppam jox na ko sëñ Mbàkke doonub taalibe kon ñu ngi leen di ñaanal suñu baay yooyu sa borom yàggal leen fi te wér di ñaanal suñu càmm ñi bopp yi ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal suñu am li ak ñi bokkal suñ Cheikh Ndiaye Baara ak ñi ñu bokkal suñ Fallou Ndiaye ak mboolem njabootu suñ maam ak mboolem rek jigéen ñi muy bàjjen maam say muy bàjjen euh, ami Baara bi nga xam ne mooy taaw ak mboolem seeni rakk ba ci bàjjen Xadi bi ñu ma tudde ñëpp daal ñi ngi ñaan jigéen ñi góor ñi yàlla ga yàgg a taxawe jataay bii ñaanal njaboot gu jigéen gi ak gu góor gi yëpp nag man da kontaan naa sama xol sedd ndax ñun ñëpp wenn say lañ def depuis démb ba léegi di fanaan ci waañ wi di yendu ci waañ wi te soxlawuñ dara ci bernde yi ngir màggale ko seen maam di baax ma muy sëñ baara waaye nañu xam ne kër gi lu fi waay am ba di ko tiitaroo ba lu fi waay yëg ba di ko jamoo Serigne Bara Ndiaye la kon nañ fonkaat suñu maam ji jàpp ko te xam ne am ñu amut maam ju mel ne moom sax ñu ngi jàpp seeni maam kon nañ jàpp sëñ Bara xam kan mooy sëñ Bara waaw ñu xam ne sëñ Bara kenn du moom liggéeyal na Cheikh Rafal bokk ak moom jaayee ko jëndee ko ak taalibe ànd ak moom nag ci lépp gunge ko ci lépp nopp koo gis yam cee magat ji muy sëñ Mor kon nañ nañ santaat yàlla bi te jàppaat sëñ Bara Ndiaye te xam ne kenn du moom ko kon nañ ko jàpp asalaamaaleykum wa rahmatulah damaa sonn ba li ma war a wax sax munu ma ko wax ak xol bi daa sedd yéen nag ñu ngi leen di santaat bu baax ndax site bi day sama site li ma waxoon rek laay wax site bi sama site la ñi ma bokkal suñ toll nag laa koy wax ak ñoo bokkal Cheikh Ibra Fall Touba lamp leeral bii damaa ne ci biir. liggey bi and ak ñoom seenu liggey kon képp mo xamne ba nga site bi dem ca kanam na nga abonné ci site bi ndax man ci biir la bok di liggey di and ak ñoom bon na ci ñepp japp liggey bi dem ci kanam. asalaamaaleykum di nuyu mbooloo njaru suñu daara gi fi teew yëpp ñu sant ñëpp nag suñu kàddu moom ñëw na lool waaye ñu sant ñu ngi gërëm ñëpp di ñaan ci bis bi lépp lu si waay ñaan ak lu borom ndax lépp suñ baara la ñun de luñ mën a am ba ko tiitaroo de di baax jala kon nag dañoo mënta wax waaye nag ñu di ko gërëm te xam ne si lépp lu ñu am rek mooma bokk taalibe yëpp sant suñ Mbàkke Njaay baara di ko ñaanal yàlla yàggal ko lool guddalaw fanam te ko ak wér di baax suñ Tuubaa Seybra baax suñ Baara Njaay li mu bëgg a liggéeye suñ Baara Njaay lépp yàlla na ko yàlla may kàttan bu mu ko mën a liggéeyee ak ñun ñi nga xam te ne ñun ñooy taalibe kër yi ndax ñun ay taalibe rek lañ ànd ak moom bi ñu ko fasiyene and ak mom nak fi ba aljana na ñaan yalla nak ku fan gu and ak wër ba lepp lu mu wote rek ñu yalla may ñu ak kàttan duñ ko mëna wuté ak wërsa wuñ ci mëna def ci doole sey Ibra heure bu gëstoo rek yalla ñu gis ci wétam ci bàtti maam Cheikh. jërëjëf euh, Lamp Fall leral tuba mu melni ñi ñu ngi taxawoon ak fii soxna Khady ndjay xewal soxna Khady ndjay bu Fall fallu euh, momit kam niñ ko waxee rek ci bi da dib ci tam euh, day bo xamni ci wax deug yalla am fépp fu mën di nek di liggéey Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall mo fi suñu jigéen doon xam ne pour mën a def rek bu ñu ko gisee rek suñu xel day dal te moo ñuy toppatoo ci yëpp di ñu defal lépp loo xam ne sii daal gis nga buñ fa ñëwee daal duñ jaaxale wax dëgg yàlla yëpp la yëkkati di ko def ci ñi nga xam ne bokk nañu moom liggéey bi ni ñu ko waxee nañu ko defee noonu nañu ànd ak moom abonné ci Lampa Leeral Touba gii te xam ne liggéey bii kat liggéey bi Serigne Touba Cheikh Ibrahima ci si euh, ñi ngi lu jëm ci kër Cheikh Ibrahima wala lu jëm ci kër Serigne Touba wala lu jëm ci mboolem li ñu def lu baax ci sut bi rek ci lay dox ah, depuis booba léegi nag bi ñu ko yëkkati ak dëgg ni kilifa yu bari seen xol sedd na seen xel dal na ci liggéey bi nga xam ne si moom la Lamp Fall Leeral di doxal kon ñu ngi sant soxna Khady bu baax di ko ñaanal suñu borom taxawu ko suñu borom yàggal la fi ndax wax dëgg yàlla am suñu yaay nga suñu lépp nga ñu ngi lay ñaanal rek suñu borom defal la ndam ak tawfeex bu baax a baax Lamp damaa bëgg ñëpp nañ ci abonné maa ngi ci woo borom kër Daaru Salaam la dëkk mi ngi fii ci biir di santaat waa Daaru Salaam waa kër maam Cheikh Anta yëpp ñëw nañ di santaat waa kër Sëñ Tuubaa yi mu àndal waaye di santaat waa kër Cheikh Fall di wax nañu site bii sunu site la ku sant Mbàkke ku sant Fall ñu def ci sunu loxo jàpp ci site bi jëm sa kanam ndax ku nekk da koy jàpp te ko jàpp bu baax a baax jërëjëf kon ni mu ko waxee rek kon site bi ñu jàpp ko baax rek ñu ngi ànd ak Lamp Fall Leeral Touba di wéyal liggéey bi ba ci kanam bu ko jërëjëf la ilaha illallah la ilaha illallah